bi Cheikh Tidiane Sène la waaye ñun daal li ñuy yëngu moom yaakaar naa ne lu jëm si askan wi la parce que mën naa ne télévision doon na loo xam ne ñëpp xam nañ ne du lu yomb yàlla def na ñu jéem ko yombal mën koy euh, yeggale si askan wi yëpp ba ci biir loolu la ñun li ñuy def mooy la réseau câble te loolu nag vraiment ñuy jël mën naa ne image yeeg li si war yëpp di ko jot li ba si biir njaboot yi laal ku ne war si mën a jot ñooñu ngay gis nag yàlla def na may seen njiit partout au Sénégal fi mu toll nii waaw loolu moom vraiment lu may rafet lu la vraiment tamit ñoom di leen si gërëm te loolu it li ma si gën a gis rek mën naa def ma gën a ñaaxaat pour mu gën a góor góorgóorlu si lépp loo xam ne maa ngi ko doon def pour samay population parce que yàlla def na tamit euh, fii laa dëkk aw ma fudul Pikine vraiment tamit bëgg naa lépp loo xam ne maa ngi ci wala lépp loo xam ne lu ma am la bokk ak waa Pikine loolu fooga naa ne kenn gisu ko mais bu ma demee ba association bi ABS gis ko ñëw di ma si ràññaatle vraiment loolu daf may gën a góorloo yokk góorgóorlu lu ma nekkoon ma gën si góor góor laal waaw idée boobu moom wax dëgg yàlla lu ñuy rafetu la parce que yàlla def ñun ñëpp borom njaboot lañ te amaana comme li ñuy wax rek léegi ku ne sa njaboot mënoo ci dara parce que amuñu jot mën di toog ak suñu njaboot xale yi moom boo xëyee dem yaa ngi liggéey muy yaay yi ak papa yi bàyyi leen ginnaaw wax fa dëgg yàlla mën naa ne lu bari mënatoo ko am si ñoom kon nag bu ay nit jógee ne dañ lay jàppale ci loolu yaakaar naa ne wax dëgg yàlla ñooñu kenn amul seen fay ba vraiment ñu ngi ñaan lii ñu nekk ñoom suñu borom gën leen si dëgëral gën leen si jàppale vraiment ba lépp lu ñu si yaakaar rek suñu borom may leen lu raw seen njot waaw moom je pense que li ma mën a waxaat rek Euh, dañoo laal fépp parce que àddina moom li ñuy wax ndaw moo ko yor ak jigéen kon lépp lu waaye def nga ne da nga koy jëmale ci ndaw yi da koy jëmale ci jigéen ñi yaakaar naa ne vraiment bu ñu doon wax duut baaraam fi nga ko teg moom baax na kon je pense que laal dëgg-dëgg matal nañ lépp laal xanaa ñaan rek suñu borom yóbbuñu si vraiment si jàmm ak salaam ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabi alamin waa li ma si mën a joxe comme conseil rek moo di ne Euh, ñu li ñu xam mooy nit ki topp ay kilifaam kilifa rawatina ñi nga xam ne ñoo lay meññ sa yaay ak sa papa leneen li mooy topp say mag kon yo yaakaar naa ne àddina bu fekkee papa ak yaay jubal nañ taaw yi ñëw topp ci seen tànk ndaw ñi bu ñëwee topp seeni mag rek boobaa lépp mooy sotti kon yaakaar naa ne ñu ko ABS xalaatee ni jigéen dal ne ndaw mooy li ma waxoon sànq rek vraiment yaakaar naa fi ñu jàpp foofu la ñaan rek vraiment suñu borom sotti lépp. waaw yaakaar naa ne li ñu def nii dara bu fekkoon dañuy wax décentralisation gën dara gënu mën a doon décentraliser li ñu doon liggéey tey jii man yàlla def nañu ñëw choisir ma boole ma seen i yaakaar naa loolu defal ma ko defal ko sama njaboot la defal ko samay am di jàmm defal ko samay dëkkandoog ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne maa ak ñoom ñoo bokk liggéey kon yaakaar boo ma ko defalee rek. ba naa ne defal nga ko ñëpp kon yaakaar naa ne nu mu gën a yaatu dina gën a yaatu ba nga xam ne yëpp koo xam ne mën naa ne ku ma xam la wala kee xam ne ku ma jege la vraiment dina xam lan mooy ABS te tamit dina xam lan la ABS di def si biir banlieue bi le mot de la fin rek mooy xanaa di sant di gërëm ñi nga xam ne wax dëggaale lii yëpp ñoom ñoo ko euh, ñoo ko togg ba mu nekk di ñaan nag suñu borom yóbbul ñu si jàmm ak salaam vraiment bu boobaa ñu def ko si bisimilah rahmaani génn si alhamdulilahi rabi alamin defaat yeneen yu gën a rëy yi ba nga xam ne dañ daan xajul sax dans le si banlieue bi loolu laal laa moom la may si ñaan di leen sant di leen gërëm